may jàmm suñu réew may jàmm njiitu réew mi ak euh, may jàmm kilifa yi nekk ci réew mi yépp euh, di ñaan yàlla rek euh, comme niñ ko wooree ci jàmm ak salaam buñ ci génnee war a dugaat ci activités yi yàlla saxal jàmm jooju ci Sénégal naatal Sénégal ci Sénégal jëm kanam koom-koom bi ak yokkute bu mat sëkk am ci biir Sénégal weeru jaamu yàlla la xéewal la Euh, yàpp naa ni am na ngëneel yoo xam ne nii yu nekk ci euh, weer wi euh, dinañu permettre ñu passer temps bu bari suñu biir famille ak njaboot gi di gërëm soxna yi sonn suñu soxna bu ñu ne soxna yi nga xam ne nii ñooy sonn ci biir kër yi di gërëm suma soxna sumay njaboot ñaari tur tànk yi di nuyu tamit suma mbokku géejawa yépp ak euh, particulièrement euh, bu commune Waxinaan Nimzaat di leen baalu ak ñoom tamit bu baax a baax a baax di leen ñaanal weer bi nag weeru solidarité la euh, jàpp naa ni moment de solidarité et solidarité bi ñu gis mu am ci biir weeru koor gi nit ñi di jàppalante ñi tane tuuti di xalaat ñi ñu tane partage loolu dafa nekk ay valeurs yu essentielles solidarité ak partage dafa nekk valeur yu essentielle yoo xam ne ni dañ ko dund gis ko ci biir weeru koor gi loolu nag dafa nekk valeur yoo xam ne ni dafa war a continuer di sax ci biir réew mi euh, di ñaan euh, di ñaanal jeunesse bi di leen di leen déwénati parce que c'est important Euh, ñuy waxtaan ci occasion yu nekk ak jeunesse Sénégal parce que àdduna dafa am fu mu toll fu xaw a jaxasoo te ndaw ñi dañoo soxla am ay repères ndaw ñi dañoo soxla ñu gindi leen won leen yoon teg leen ci yoon bi nga xam ne nii moom mooy yoon bi jub yoon bi leen mën a assurer suba ëllëg boo xam ne nii ëllëg bu méngoog li ñu bëgg la euh, loolu nag ñuy wax ndaw ñi euh, ñu am yaakaar si seen réew parce que ñu ngi ci réew moo xam ne nii am na Euh, benn aspect bu am solo muy jàmm bu fi nekk ñoom ñu war a ñu hérité ko ci seeni jur ak ci seeni maam seen responsabilité ak seen mission mooy ñu fexe ba jàmm jooju sax loolu nag ñu war ko def ci éducation ci formation ci citoyenneté euh, te xam ni am nañ euh, seen réew démocratie bu mat sëkk bu sax ak système Euh, democratique boo xam ne nii ak njiitu réew boo xam ne nii saa yu xëyee suba ba ngoon mu ngi ci mébétu réew mi donc réew bu ñuy tabax àndul ak yàq donc képp kuy woo ndaw Sénégal ci yàq nekkul koo xam ne nii mu ngi euh, dox li nga xam ne nii mooy intere réew mi donc il faut que ndaw yi ñu xam lan mooy intérêt réew mi ñu xam xaaj ak seet mun bu baax a baax a baax ci li nga xam ne nii moom mooy seen njëriñ li nekk seen njëriñ mooy ki leen di woo ci naka la ñuy def ba seen njàng antu naka la ñuy def ba seen formation antu naka la ñuy def ba mun a am euh, liggéey naka la ñuy mun a def ba mun a suturlu ba mun a tabax kër ba mun a euh, jëriñ seeni waajur loolu moo essentiel mooy valeur yi nga xam ne nii moo essentiel ci biir euh, ci ci ci ci ndaw te ci loolu la ñuy woo ndaw yépp di wax déwénati ci bésu korité bii ñu nekk déwénati sénégalais yépp euh, déwénati particulièrement ci njiitu sénégalais yépp muy président de la république Macky Sall di suñu njiit ñun ñépp di ko ñaanal jàmmam sax euh, mépétam ci biir réew mi mu yegg yeggale ko comme ni mu ko bëggee euh, di ñaanal di wax déwénati tamit à tous les membres de son gouvernement au premier ministre et à toute la grande majorité présidentielle, mais aussi déwénati à tous les Sénégalais, euh, déwénati aussi à no compatriotes euh, concitoyens de Guédiawaye, à toutes les populations de Guédiawaye, particulièrement Wakhinane Nimzatt di leen ñaanal ñoom ñëpp jàmm yàlla nangul leen seen koor euh, te yeggali seen mébét ci biir Sénégal.